loolu nag daje rek ndax campagne am na ñu ngeen dëkk daje dafa war a am même pour ndax lu am solo la daje lu am solo la rajo communautaire léegi Sénégal am na ak fukk ak ñeent am ngeen rôle bu am solo bu ngeen di joué ci population yi kon nag ñun xam nañ seen importance loolu li am des nag na rajo communautaire li ko tur bu waxee communauté la fi nekk man mënu ko moom wala keneen communauté bi la fi nekk bu fi nekk communauté bi nag mën na liggéey ci jàmm ba élection amee mën na wax ci jàmm mu na fexe ba euh, am ci gox bi ñu nekk waaye dugg ci politique partisane maanaam toujours par parloo loolu loi bi daf leen ko tere léegi nag bëree dee wàllu koom-koom bi gis nañu ne am na ay rëq-rëq yu si am incha allah bu ñu weesoo élection yi jëm kanam dañ dajewaat seet euh, lan lañu mën def rajo communautaire yi ci liggéey man ci dund li mu waree ndax man xam naa ne am na ñoo xam ne ñii xam nañu lu de communautaire ak ONG yu mag yu am doole yu am xaalis man leen jàppale ci seen liggéey waaye daal ngeen moytu dugg ci politique partisane ci semaine yi ñëw ndaxte bokkul ak li ngeen signé bokkul ak li rajo communautaire war a wax waxuma nag ay communiqué communiqué yoo xam ne dafa concerne askan bi dem nañ jël seen carte dem leen reté seen carte d'identité wala lamb am na wala jàng yi am na loolu lu am solo la li bon daal mooy dugg ci recette commerciale yoo xam ne yi day tax li ñuy wax am am rajo bi changé ndax rajo communautaire rajo askan wi la dafa reflété dund askan bi waaye wër dugg ci par par loo buy xajale loolu lu am solo la waaye daal réunion tey moom dama ko rafetlu loolu wax dëgg yàlla da ngeen ma wax loolu lépp dégg naa ko te lu am solo ngeen ma wax kon incha allah bu ñuy paase dinañu toogaat waxtaan xam bu ñu jëm ëllëg incha